Serigne Cheikh Ndiaye Ndiakhé ca Camberène 2 di sët ci Serigne Darou Assane Ndiaye moo leen de proposer ay service am ngir lu mën a faj seeni aajo ak seeni jafe-jafe bu dee ci wàllu listixaar foo leen mën a nekk ngeen ne ci réew mi wala biti réew mën na leen ko defal ci anam gu mu gën a muccee ayib ngir xam yan sarax ak yan ñaan nga soxla ngir mën a faj say aajo yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg a gis seenu dund ñoŋ lool rawatina way dencante yi Serigne Cheikh Ndiaye Ndiakhé laa ci wóolu kii moo la ci mën a dimbali ci anam gu mu gën a gaawe yéen ñi bëgg yëngatu ci wàllu papier bëgg koo am te du am benn gàllankoor rawatina yéen ñu yëngatu ci wàllu passeport yéen ñi bëgg contrat ci entreprise kaw leen gaaw jokkoo ak Serigne Cheikh Ndiaye njare mu defal leen ci tawféex bu dee ci lu jëm ci wàllu xëlwatu yéen ñi bëgg a jëfandikoo wàllu bayre ba ñëpp bëgg leen foo leen tamit ñu bëgg leen gaaw leen yegg si Serigne bi da ciy yëngatu ci lu mu gën a gaawee bu dee ci wàllu xëlwatu loolee nag lu mu mën la mën na la koy defal ci anam gu mu gën a selle yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg a ak yokkute Serigne Cheikh Ndiaye njare moo ma ci doy dina leen proposé it ay jaaro yu am solo ngir mën saafara seen i jafe-jafe yooyu muy joxe ay joxe koppor wala sax nga tekki ci jara yéen ñi nga xam ne da ngeen am jafe-jafe ci wàllu sëy moo xam impuissance sexuelle faiblesse sexuelle ba ci yeneen jafe-jafe ci wàllu sëy wala hémorroïde ndoxum siti asthme diabète wala tension gaaw leen gaaw ñoo jokkoo ak Serigne Cheikh Ndiaye Ndiakhé mu andi leen ci saafara ci lu mu gën a gaawee am na it lu mu duppee ndomba njare kookee nag lu am solo la ngir xeetu liggéey yu bon na yéen ñi nga xam ne da ngeen ne ci business di yëngatu itam te ragal lool jëm kaso Serigne bi mën na leen ci dimbali Serigne Cheikh Ndiaye Ndiakhé mi ngi fii ci Sénégal gaaw leen gaaw profité ci ngir aajo yi faju mi ngi fii ci Cambérène 2 numéro téléphone am 78 475